نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi santaat suñu borom subhaanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ si mbooleem tur yu sell yi ak melokaan yu kaw yi nga xam ne suñu borom moo ko jagoo moo ko tuddewoo noo ngi dellu siwaat ci détail bi nga xam ne dañ koy amal ci ay bi si ne ci waxtu wi di ci fàttalante lu jëm ci suñu wàllu diine ndax fàttali ndigal la lu bàyyi ko suñu borom dee leen fàttali ndax fàttali day jëriñ doomu aadama day sunu borom da ko bind mu nekk fàttekat insaan mooy doomu aadama baat bi ci làkku arab mi ngi jóge ci nasiya muy fàtte na wala koy fàtte moo tax sunu borom jox wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu azman yàlla daa fasante woon ak aadama kóllëre aadama fàtte ba kóllëre ga fecceeku kon fàtte googa moo dab doomu aadama doomu aadama nag comme day fàttali bu dee ngëm mi ngi ci xolam saa buñ ko fàttalee dafa war a fàttali ko bokk na ci mandarga yi wane nit ragal na yàlla mooy suñ ko fàttalee mu fàttaliku ndax sayadakkaru may yaxsha bokk na ci mandarga yi wane ni ngëm yàlla gi def ni ci xol mooy buñ la fàttalikoo doo fàttali kon fàttali tey gi noo ngi ko jëme ci man humul ulama wa waajibuna naxwahum ñan la ñuy tuddee ay boromi xam-xam ñan ñooy borom xam-xam yi ak lan mooy sunu waru gar jëm ca borom xam-xam yi kon facilité bi dama ko tënk ci ñaari tomb tomb bu njëkk bi mooy ñan ñooy borom xam-xam yi tombam ñaareel bi mooy lan mooy sunu waru gar jëm ci ñi ñuy tuddee borom xam-xam yi amaan na dañun ñi ñuy àttee njuumte la mooy ku jàng ñu tuddee ko borom xam-xam ku mën a làkk arab ñu tuddee ko borom xam-xam ku mokkal ñaari xadis ñett ñu tuddee ko borom xam-xam fekk déedéet du noonu borom xam-xam mooy koo xam ne dafa xam alquran ak sunna doonte lam ca xam bariwut waaye xam na te su lëf te ma ngi koy jëfe su jëfe ga jugal ko ragal yàlla kooku borom xam-xam la insha allah lam am su bariwul dañ koy tuddee borom xam-xam bu ndaw waaye borom xam-xam lii mooy borom xam xam na alquran ak sunna lam ca xam doonte bariwul ma ngi koy jëfe te jural na ko ragal yàlla loola mooy borom xam-xam moo tax borom dafa innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama kon xam-xam day lu màgg la lu rëy la ñun ñëpp di ay góor ak ay jigéen bu ñu yëgoon tey balaa jant bi so suñu yëgoon dayo bi nga xam ne xam-xam am na ko wallaay dinañ njeejo dinañ njeejo balaa ñuy tëdd ci lal tey tey tey ñu nekk ay borom kon xam-xam lu màgg la lu rëy la ak a neexoon nit ki yàlla def ko mu nekk borom xam-xam bal ñeetaange yontu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam laa xasada illa fitnatayni kenn jarut muy ñee morom ma lu dul ci ñaari mbir ñaari mbir yi moom jar na ñeetaat waa joo xam ne yàlla da koo jox alal muy xool fa mu gën a baaxee ci projet l'islam yi mu di ko fa dugal ah kooka de jar naa ñee waa ji nga xam ne yàlla da koo dénk xam-xam wala alquran mu di ko jëfe pare di ko jàngale di ko jottali ah kooka de jar naa ñii kon ñaar ñii rek ñoo mata ñii waaye keneen koo ñee ku dut ñaar ñii wallaahi wax ci nga solo xam-xam day suñ fokkee alquran yàlla da ci wax ay ngëneel yu bëri yu rëy yu lay wan ni xam-xam xalsa dana la wax ne alxuraan moom la fees dell suñu borom garanti na ne ñii ragal yàlla ci kaw suuf day mooy ñi ko xam te xam bu amee rek xam-xam am na ak lu mu néew néew suñu borom ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama suñu borom ne ndax yaakaar ngeen ni ñi xam ak ñi xamut yàlla dina leen yamale tontu bi mooy déedéet in hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun xoolal yàlla tey yow boo doon wut ab seede ndax di nga fekk ndox nga di ko jëlub seede déedéet ndax di nga fekk waa joo xam ne ab caaxaankat la nga di ko def seede déedéet da ngay gës ku wóor waaye xoolal yàlla ca màggaayam nga ba mu amee lu muy wut seede ah lu mu soxla ñu ni nañ ko def seede dafa jël borom xam-xam te lan la wut ku ko seede mooy li gën a màgg ci lu ciy fas muy fas-fas شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو يلا سيدنا ملائكة سيدنا برم خم خم سيدنا الله أكبر نتي خم لأم دير لن كوي بولك أي ملائكة ملائكة سيدنا برم من كوي دي يلد نيون سيدنا وكو قرار وير إلا سنبرم مني وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم walladina utul ilma darajat yàlla dañuy seet ñi gëm yàlla mu yëkkati leen daraja yu kawe waaye ca biir ñu gëm mu tànnaat te ñi ñu tuddee ñu xam nag mu yëkkati leen daraja yu gën a kawe ndekete buru bu ñi gëm yàlla ñi ko xam ñoom ñooy ñu gën a rëy yàlla sax su bopp subhanahu wa taala xaj bu am xam-xam sax la gën a ormal ci xaj bu amul xam-xam su ma waxee loolu kenn ci ñun dana jaaxle waaye lépp ñu ngi koy dalloo ci alquran dama ci suratul maida ah sunu borom subhana taala ba muy wax xaj bu jàpp yàpp xaj bu rëbb ah yàlla subhanahu wa taala mu ni yasalunaka maada uxilla lakum qul uxilla lakum altayibat wa ma allamtum min aljawarix mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum allah yàlla mu ni ñu ngi lay laaj ci dagan ci ñoom yàlla muy dagan na sàmm dagan na li ngeen jàpp mu di ndëbb waaye xaj yi nga xam ne xamut bu jàppee kooku kenn du lekk lam lam jàpp rëbb waaye xaj bu am xam-xam bu jàppee dagan na ñu lekk lam jàpp donte dañ koo fekk mu dee lan mooy xaj bu bu am xam-xam xaj boo xam ne dañ koo jàngal ñu ñuy rëbbee ba mu am xam-xam rëbb xaj booba bu la demee jàppal la bu la indilee loolu dagan na nga lekk waaye xaj boo xam ne jàngaluñ ko xamut dara mu dem jàpp mu indi daganul ñu lekk ma ne la kon xaj bu am xam-xam sax la yàlla gën a ormal ci xaj bu amul xam-xam boo ko toppee ci alquran da ngay gis lu bare bare bare bare qul aminu bi aw la tuminu inna alladina utul ilma ida yutla alayhim yaxirruuna lil azqaani sujjada wa yaquluuna subhana rabbina in kaana waadu rabbina la mafuula ñi nga xam ne ñooy tàkku xam-xam day ñoo am xam-xam suñ leen tuddalee aay yàlla yi dañuy rot su juutal yàlla tudd sell ak yàlla ndekete dëgg dëgg dëgg la daal di wax dëgg dëgg ndeke digab yàlla bi dëgg la alxuraan moom la fees yàlla nenoo ci sunna leen saatalam yéen ci yàlla bi nee na képp ku sóobu ci aw yoon di sàkku xam-xam yàlla dina ko tàggatal yombatalal ko yoonu aljanna ah te nit ki sàkku xam-xam day yàlla da yebal malaaka mu ñëw ron laafam ci sa roni tànk nga di ca jog gante raa ngi ngeen xam ci kaw suuf bu gën a rëy yàlla debal malaaka mu rotal la ronal la laafam ngay joggi ci kaw moo leen li ci kaw suuf si di la jéggalul ba ca jën ñe ca biir géej ga yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm loolu la ñuy wax te képp ku dee ci yoon woowu da ngaa dee ci yoon woo xam ne ku sahiid la kuy dem aljanna yéen ci yàlla bi nee na ngëneel yi nga xam ni ci xam am na ko ci ñu xamut mi ngi mel ni ñi ma leen gën a yéen nit ñi moom Mouhamad xoolal Mouhamad seen na ko tëkkalee Mouhamad moo gën nit ñi fuuf yéen ci yàlla bi nee na gën gi ma leen gën man Mouhamad noonu la ci xam gënee ñu xamul kon est ce que du ma jéem a sonn ma jéem a góorgóorlu yëpp ñu xam sax lu rëy la ma jéem a bokk te ñooñu te yàlla rek sax ma bëgg saa bokk na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ñi nga xam ni noonu la xam borom xam-xam ci xam gënee nit ñi mi ngi mel ni ni weer wi wala jant bi gënee mboolem biddéew yi nekk ci asamaan ah ak yeneen yeneen xadis yu bari yoo xam ne su ma ko naroon topp damay lim lu bari ci sax te du loolu rek moo ñu tax a jóg kon li ma la bëgg a waxal mooy ndekete xam-xam bi rëy la xam-xam mooy mooy valeur xam-xam mooy teraanga alal yaa ko moom waaye yaa koy wat xam-xam yaa ko moom waaye moo lay garde ci xam-xam lan lay joxe orma ci xam-xam la la yàlla yi gën a yëkkatalee ay daraja ci la la malaaka yi tamit gën a maanaam fonkee ci la la nit ñu baax ñi tamit di gën a fonkee ci lay ëppalee njëriñ tamit l'islam xam-xam day lu rëy la lu màgg la kan mooy borom xam-xam borom xam-xam mooy kookee nga xam ni bu ñu xamoon lim nuy fournir lim nuy indil dañuy yëg ni kii day njariñ bi ñu amal moo ëpp njariñ bi ñu suñu bàyyi amal ak bi ñu suñu yaay amal wallahu axrajakum min butuli ummahatikum laa taalamuuna cheyan kenn ku nekk yàlla ne ni ma lay génn sa biir yaay xamoo ci dara xamoo dara xamoo xam-xam yàlla may la xel ak nopp ak dégg ak xol waaye borom xam-xam di la seetsi lii du nii lañ koy waxee nee lañ koy waxee lii du nii la nee la yonent bi nee lii dañ koy tere lii dañ ko bëgg lii nangam nangam lii dañ koy tere noonu la lay toppee di la ko toppee di la ko toppee ba yow nga xam yàlla dëgg-dëgg dama ne boo xamoon lan mooy borom xam-xam di nga xam ni kii njariñ bi mu la amal moo ëpp njariñ bi la sa baay amal ak bi la sa yaay amal kan mooy borom xam-xam mooy kookee nga xam ni ab jant la te moo gën jant aw weer la te moo gën weer ndax ma nga ne ca kaw asamaan sa di leeral adduna bi yëpp jant guddi du fi nekk weer bëccëg du fi nekk te xam-xam guddeeg bëccëg ñu ngi fi te li muy jëriñ rek lay continuer jëriñ kan mooy borom xam-xam mooy kookee nga xam ne dañuy bisar ni ko ka daw ay xel jëm sawara moo nu dogaat ni déedéet kaay leen du foofu fii la kooka moo nu amal njëriñ kan mooy borom xam-xam mooy ki ñuy setti di ñu wan yoon yu tax ñu xam yàlla subhanahu wa taala kooku la saka ku màgg la ku rëy la kooku amul morom ci ci ci ci mbindeef yi amul kuñ koy moromal seen ndax kooku keneen ku dut moom njariñ bi mu amal l'islam njariñ bi mu la amal yow bu la borom xam-xam amal moo ëpp moo tax mbokk yi xam-xam dëgg dëgg dëgg valeur bi mu am joxuñu ko ko wa kadalika borom xam-xam ci valeur bi mu am joxuñu ko loolu nag bu ñu ko yëgee yëg ni kii mooy borom xam-xam nga xam ni bu faatoo musiba am na seytaane day kontaan si borom xam-xam bu faatu njabootu seytaane bi njabootu iblis bi benn gis dañoo dajeeg moom ni ko waaw maam iblis yow dañoo gis ni su ab jaamukatu yàlla bu ma faatoo affaire bi daal moom lu simple faatu ñoo bokk yam waaye su borom xam-xam faatoo da ngay kontaan da ngay dëkk lu tax loolu mu ñu xamu leen ko ñu ni déedéet mu ni kaay leen ñu ànd suba te suba dañu daal di ànd ak moom mu ñëw ba fekk benn jaamukatu yàlla ci benn jàkka mu ni ko yee jiw sàngam mu ni ko naam mu ni ko est ce que yàlla mën naa jël adduna bi yëpp dugal ko ci biir ab nen adduna bi yëpp est ce que yàlla mën na koo leen dugal ko ci biir nen waa de nit fekk mu yàgg mu ni ah xaw ma ci dara de bi de gerte ni d'abord gis nga li ma leen waxatee nii moom wedd na yàlla te yëgut mi ngi ab jaamukatu yàlla wedd na yàlla te yëgu ko ndax saa bu ñëwee ndax yàlla mën na nangam ngay sikki sàkk rek yow di nga yàlla parce que yàlla ala kulli shay'in qadir mu ni gis ngeen mu ngi ni kafara billahi wala mu yaxoor weddi na yàlla te yëgul mu ni kaay leen dem gis ngeen fii xamul dara waaye jaamu ko fi yàlla kaay leen ci ko xam mu dikk ba fekk benn waaye ci xalxaam muy jàngale ma nga wax lu reelu ba ndong nga yaa ngay reetaan mu bàyyi bañu ree ba nag mu ni ko waaw est ce que yàlla mën naa jël adduna bi yëpp dugal ko ci biir ab nen mu ni ko waaw wow mu ni ko nu koy defee mu ni innama amruhu bayna al-saati wan nuun moom bëggee kon rek la wax affaire bi nekk mu ne li may waxatee ngi nii gis na mi ngi nii su àddina bi doon waaja tax une seconde mën na koo régler dem yoonam moom borom xam-xam leneen a ngi nii benn iblis benn seytaan daa romb morom ci biir jàkka ji mu fekk benn waay buy nelaw bu di ko upp bàyyi keneen koy julli moromam seytaane ni ko romb ko ni ko waaw yow yow yëpp daf yi ngay def mooy yow kii kii mi ngi nelaw kay kii kay yàlla fegal na la ko demal ci koy julli nga yàqal ko mu ne ko déedéet lii man maa la ko gën a xam gis nga kii di nelaw borom xam-xam la te kee di julli ku xamul dara la bu dee kii julli comme xamul dara su jamajee sax bu xam julli gi lu koy defar bu ko defee julleem du baax te ko am na cëf toona mu ni ko waaw borom xam-xam bi lu tax nga koy upp te mi ngi nelaw mu ne ko dama koy upp ndax tàngoor yi dañ koo yee ndax xam naa ni bis bu yeewoo seen kay julli bu julli nga këpp këppalee mu defar ko te loolu laay bañ seytaan ku bon la ku yées la fexe mu nekk da koy def ngir galgal ay borome xam-xam parce que borom xam-xam dañuy wax zallatul aalimi zallatul aalami zallatul aalimi zallatul aalami boo nee aalimi mooy borom xam-xam boo nee aalami mooy addina bi tarxii tax borom xam-xam mooy addina bi yëpp nar a tarxii ndax ñu muy yóbbaale dañuy bari kon mbokk yi maa waajibuna naxwa al ulama kon lan mooy suñu warugar diggante suñuy borom yi xam-xam waaw foofu nag mooy lubbul mawdu bi nag mooy xolub waxtaan bi lan moo nu war suñu diggante suñuy borom yi xam-xam moom bu ci njëkk ci li ñu war suñu diggante ak ñoom ginnaaw bu ñu yëgee ni ñoom lii lan ñuy jariñ muy ñu di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu mu mu guddal seen fan mu barkeel seen dund mu yokk seen xam-xam mu defal leen baraka mu dëgëral leen mu gën leen ci seytaan loo jàpp ni boo ko ñaanalee nit mu baax ca moom dama ne ab borom xam-xam moo ko jiitu allahu akbar doomi abdullah ibne ahmad dañu waa bàyyi man damaa jaaxle bàyyi trente ans yi nii may seetlu ni yow ah ah imam ahmad mu ni fanweeri at a ngi nii waaye maam doom ji dañu ko man damaa seetlu li ngay ñaanal imam shafii dafa bari lool lool lool lool lool bàyyi ji ni ko fanweeri at a ngi nii musuma julli lu ko damay ñaanal shafii mu ne ko kuy shafii ci kërëb àddina mu ne ko kooku daal su ma la ko mënoon waxal dama naan la moo nekkoon jant bi jamono bu ñuy dund moo nekkoon jant bi xam nga njëriñ bi jant bi amal waa àddina mu ne ko noonu la Shaafi'i amaloon njëriñ àddina bi allahu akbar yeneen a ngi ni ci ñoom koo xam ne moom nee na amul julli ku muy julli ba yeggal lu dul dana ñaanal sëriñ bi ko doon jàngal mu ne lu tax mu ne dafa yëg ni kooku li mu ko defal ci kaw suuf amul keneen kooku ko defal ci kaw suuf kon dañoo xam leen am leen dañ leen amal ak di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala di leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen rawatina ci jamono bi ñu toll nga xam ne jamono yi fitna la dinaa koy baamu lu bari dinaa wax mbokk yi man su ma gisee ab borom xam-xam boo xam ne yàlla da koo nag koo ñàkk wala demee noonu wallahi damay tiit ñaari fitna ngi nii yoo xam ne benn bu ne bu rëy la war nañuy ñaanal suñuy borom xam-xam fitnay alal fitnay jigéen fitnay alal fitnay jigéen noonu lislaam yi bokk na ci seeni pexe bu ñu xamee ni kii kat ak borom xam-xam la mi ngi amal njëriñ baaw mi ngi amal njëriñ sunna si mi ngi defar ay nit mi ngi jubbanti ay nit mi ngi leen di yar ci sunna mi ngi topp ci askan wi wallahi mën nañoo tëral fexe mu bon mu yées nga yàqal la te lii may wax ay mbir la yu ñu teg la bu dee góor nga mën nañoo seeti ab jigéen fële ci àll boo xam ne saay saay la ñu fay ko xaalis bu dul jeex digal ko na muuru na jël baat na nangam na nangam comme ni ngeen ko xamee fii ngeen gis ne ko liñ bëgg lenn la rek mooy koppal lu dul da yàqal ma wallahi lii may wax du may eeraat di ko xalaat di ko ay mbir yu doon am la ci jamonoy salaf ba fii ma toog di wax kooku mën naa ñëw ci sa kanam ñëwi ni ku bëgg xam-xam ñëwi ni kuy jàng ñëwi ni kuy nangam fekk kuñ fay xaalis la dana fexe fexe fexe fexe fexe da yàq sa àddina parce que yent yàlla mu ne fitna ji ma gën a tiit sama gannaaw mooy fitna jigéen ci xeet wala fitna alal wallahi mën nañ laa teg sa biir kër nga toog wala daana goo xam ne yow daanaka da ngay xëy boo añee doo reer gars yi indi benn valise boo xam ne fees jël la ki koppar ah nangam ji kat lan bëgg li ngay wax ne mi ngi déranger sëriñ si mi ngi déranger ñoom jiw nangam nangam léegi daal mën nañ laa jox lii nga noppi wallahi liñ ko def ci ay nit ñu nag bul xam nuñ toll ci ñoo xam ne ñu amaloon njëriñ daawa bi la loo xam ne da ngay déglu seen i kaset wallahi da ngay jooy ci yàlla subhanahu wa taala lu tax ndax ni ñu ni ñu sàngee ni ñu mënee leeral ni ñu mënee jindiwaate te nag dafa am ñoo xam yàlla dafa def baraka ci seen làmmiñ wallahi dañuy wax rek àddina bi jëriñ xam nga yàlla ne inna min al bayaani la sixran yàlla dafa mel ni mën a leeral njabar da cee làq muy am na ñoo xam ne moom boo bëggee jàmm buñ wax moo tax ku mel ni Xuseyn ibn Ali ku mel ni gaa yooyu gaa yi buñ musaana bëgg wax dañuy dégg ñuy sax xoole dañ leen mukk mukk leen seen déglu bu ñuy wax di convaincre ñëpp ndax yàlla moo def barke ci seen làmmiñ ñooñu pour ñu fokk sa làmmiñ ni ñuy def piège yu mel noonu la ñuy def saa saa sax amaan na boo tàgganoon tey ba ngay jaalu dañ lay caméra yi sa buñ paree caméra bi la ñuy indi ñu la gis ne mi ngi nii lii yaa ko def xam nga ni ñu yëguñu nangam boo ko waxatee tee télévision lañ koy yóbbu teg ko fi àddina bi yëpp gis ko mooy def te su ko dañu xawee ko la nga doon wax ngay bàyyi nga déggal mu daan wax nga jékki-jékki rek sa jéem gis nga alal ju dul jeex tabaxal sa kër gi ba mu yegg ñu jënd la benn saab saab jënd la nangam nangam ah affaire na da ngay nopp boo bëggee jàmm kat da ngay nopp ah nooy def ba nee na ku la ëmbal sa sànqal comme comme comme nu ko wala bi léegi tey ci ëmbal sa ku la ëmbal sa sànqal ëmbal sa ko gis nga kon dañuy ñaanal borom xam-xam yàlla dëgëral leen ci loolu allahu akbar imam ju mag benn waaye dafa weeru koor dafa jot muy séddale alal jiw jëlal jiw jëlal jiw jëlal ba yegg ci moom mu jox ko alal mu ne ko delloo ko ba nekk ba muy jàng alquran pour ñu ma ci jox par weeru koor taxul woon gis nga loolu dañ leen daan jot ñuy daw lu tax parce que loolu fit na la lay jural ah yow koo xam ni da nga daan dugg ci njaga njaay yi mu jëndal la oto may la kër may la nangam dana ni kooku boo organisé gàmm it nag boo ko laaj doo sa wax dara kon gis nga loolu ay fitna la yoo xam ne tey war nañu ñaanal borom xam-xam yàlla dëgëral leen si loolu beneen bi ci des mooy yàlla musul leen si seytaan nga xam ne seytaan day bëgg a laxas ci làmmiñam di la wax loo ay musul ay juum yu bare bare bare yoo xam ni eh dama gàtt ay njuum de ah yoo xam ne seytaan man tey mu liggéey ni tey jiw mooy def muhaadara mooy def conférence wala mooy def nangam gis nga suñu mbokk table yi rawee nañu bokk na ci jikko yu ñu rawee doon gis nga mbooloo moo dem rek même bu ñu amee sikk am nañ lu baax ñoom bu ñu nee diw dugal bayaan dañ leen yàlla yàlla dëgëral la nga gis ku tàlla ay loxam di ñaanal yàlla yàlla mooy dëgëral suñu mbokk mi làmmiñam ba mën ñoo fàttal li ñu jël gis nga loolu borom xam-xam dee ci gën a yey ñu di ko ñaanal yàlla balaa làmmiñam a barke parce que bu barke rek àddina bi yëpp barke gis nga kon fitna yi àddina dañ koo dak muy naat muy yeneen muy yeneen da ngay gis koo xam buñ ko joxee mu jël ñun buñ ko gaarale luy wàññi dinañ day jël parce que dafa sonn dafa ñàkk ba amatul luñ dundee loolu ñu ngi koy gis di ci teg bët ah waaye da ngay gis yàlla dimbali ñoo xam ne wallaay koom koomay daw di leen dàq ñoom ñuy daw di ko moytu kon li ñu njëkk war suñ diggante suñuy borom xam-xam mooy di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala xayyan wa mayitan bu ñuy dund ak buñ faatoo ndax ñooñu jëriñ nañu loo xam ne dañu bàyyi duñu ko jëriñ yaay duñu ko jëriñ keneen duñu ko jëriñ parce que ñoom ñooñuy xommat jëriñu àjjana mu ñaanal ko yàlla lu ma yaakaar ni boo ko ñaanal baax na moo xam wér la moo xam gudd fan la moo xam gën a ragal yàlla moo xam gën a góorgóor la moo xam gën a moo xam moo xam moo xam loo yaakaar ni lii suñ ko ñaanalee ak borom xam-xam dana ko jëriñ kooku amel naa ko àq boobu su ma ko defee àq ba wàcc na ma su ma ko defee àq baa ngi gàddu sama loos ba léegi waajibuna naxwal ulama lan moo nu war suñu digganteeg borom xam-xam yi mooy ak tawqiir muy ormal ndeysaan tey orma dafa jeex subhanallah li nga dig ku wax ak borom xam-xam loo xam ni allahu akbar benn borom xam-xam dafa taalif benn téere xam nga nu mu ko tuddee mu ne luxumul ulamai masmuuma yàpp borom xam-xam yi deru borom xam-xam yi potan la lekk dee la saa boo ci jógee boo amul temps yooyu nga xam ne jóg nga ci dëgg sërëf borom xam-xam yi ñu war a jox orma la te di leen nëbbal seen i ayib te di leen nëbbal seen i ayib orma ju rëy orma joo xam ni xoolal xoolal ñuy dund ñuy dund ay caaxaan comme ñi nga xam ne dund bi sunna tey ñu ma nekk day mu kadiyaan da ngay gis tey buñ jaaxale ci bàyyam sax day wax mu lànk ñu ne nañ war yooyu sëriñ comme ñoom xëy na système bi ñuy def mooy sëriñ bi mooy lépp sëriñ bi dañoo réer bàyyi mooy waay walaa di bàyyi sa sa bàyyi sax wax na nga bañ xool ñoom foofu ñu yegg naaw tomb bu njëkk boobu amaana tomb yu bari yoo xam ne wax ni noo ko salaam ginnaaw di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mooy jox leen orma ju mag Cheikh Ibrahima Khalil loo day wax ju am solo mu ne dañ nekkee ci seddo dañu ëppaloon ci suñuy sëriñ waaye diñ dikkee ci sunna ëppal googaa ñu nax dañu gàttal ci suñuy sëriñ mooy dañuy gis koo xam dañu yëgg ci di marsan ko sëriñ yéeg ah di def ay mbir yoo xam bokkaale yàlla la waaye fii da ngay gis koo xam ne da ah ci simple ni fekk la fii ah kenn du bokkaale yàlla ci moom fekk déedéet dellul ci salafu saalex ñoom ñu doon ormaale seen i sëriñ imaamu Shaafi'i day wax ne man su ma jàngee su ma Maalik day jàngal ba fooy yu jeex ma war a tijji beneen fooy ne damay tooyal sama loxo bi xam nga fooy boo ñëwee rek ubbi dana xëtal waaye boo tooyalee sa loxo day yëkkati ko ndànk ñu nekk lu tax ngay def loolu mu ni noppi Maalik laay bañ a tànqal damay bañ xëtam jooju tànqal ay noppal allahu akbar am na kenn ci ñoom dañu fanweeri at a ngi nii samay tànk musuma koo tàllal mu jàkkaarloo kër sëriñ bi lu tax ndax nee na orma joo xamante ni amoon naa ko ci moom am na ci ñoo xam ne buñ daan wax ba sëriñ bi yegg sax dañu suñu fàtte ne nga defe nga ragal la fekk déedéet ragal ak orma dañoo nuróoti bokkul gis nga kon orma ju mag ju jéggi dayo moom lañu war a am diggante ñi ñu xamal xorma jooju moo ñàkk moo tax loo ci gis da ngay am ñaata at may jàng waaye dara xaraka yàlla subhanahu wa taala du ko def ci diggante boo xamante ni xorma amul foofu waaye nit yëg ni kii lim may jëriñ amul ku ma ko jëriñ ci kaw suuf ma jox ko ci orma lu rëy lu yaatu wallahi salafu saalax waxuma la waxuma la di di tagu di tagu bànneexu ci leen di xamal waaye dama ne xar ni ñu yeew ci kër gi xar ni ñu yeew ci kër gi sax dañ daan dagu bànneexam ngir bëgg am baraka mu jàng alxaafid ibnu kathir bay nekk li mu ni ah jamonante naa sëriñ bi alxaafid al misbi jàng na ci moom nee na ñun dañ daan seet lu lu neex soxna alxaafid al misbi mu ne loolu lañ daan def mu ne lu tax ndax dañoo xam ni sëriñ bi ku bëggoon soxna si la mu ne ñu doon sàkku te loolu am ngërmande ci lay see danaan soxna si ku ragaloon yàlla jàngkat alquran di wax ay wax yu am solo maanaam am na ñu ma xam ñu mokkal alquran tax te soxna sëriñ bi moo leen mokkal alquran kon gis nga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci dund salaf ñoo xam da ngay lim yu bari ci niñ doon góorgóorloo ci diggante seen diggante ak kooku nga xamante ni moom lañ jàpp ni moo leen gën a ragal yàlla moom lañ jàpp ni mooy ñu gën a baax ku ñoo xam-xam nag mooy ragal yàlla waaye ni ko xam ne jàng na wala xam na waaye juralu ko ragal yàlla loolu taxul ñu naan xam-xam loolu dafay lor nit ki waaye du ko jëriñ kon xorma du mat sëkk ci di wàcce suñuy baat mu bañ a sëkk baatal ci xorma ci lépp loo xam ne mooy xeetu teggin li wala fi tuddee teggin ah ak warmaal ak yëg nit ki dañ koy jox ba jox ko loo xamante ni ëpp na sax lañ ko war a jox ndax dañu yëg ni kii moo leen di firnil moo leen di jariñ moo leen di yóbbul yób indi yóbbal moo leen jox yóbbal bu leen mën a jariñ fële nga xamante ni mooy ci àllaa fekk dañ daan ormaal ñi nga xam ni ñoom lañ doon jàngee ci ñoom ba xorma bi day yegg ci ñoom da nga ciy gis koo xam ne daan fiim sëriñ bi mu ñëw du war war a fas mu daw di om di ko ommatal fas yi ko jël ma leen ak leen ak sama kër mu ne ko hakada umirna an nasmaa bil ulama nii lañ ñu digal ñu defal ko borom xam-xam bi muy benn saytu dafa tëdd ba guddi ndeysaan benn ndongo daara jóge ca wala soxla ci misaal rek bu sori daa di ñëw fëgg ko sëriñ bi ne ko kookaan la mu ne ko man la di sëriñ bi ubbi mu ne ko lu xew mu ne ko man kat maa ngi jóge dëkk sàngam dañ maa tegtal ne ma yow borom xam-xam bu mag nga te dinaa ko mën a jàngale nga ku ragal yàlla nga ma bëgg ñëw jariñu ci yow sëriñ bi daal di xàcc buntu bi rek ni ko ko tëll ci jëbi ko waay comme jëmm mu day ne man tëdd heure bi nga naan da nga ma yee ma fontoore daal di tëjaat buntu allahu akbar bu doon ñu na bu doon ñu na subhanallah xàcc buntu bi ngay doon xeexal moom bu doon ñu na foofu ngay waxee wax yu ñaaw wax yu bon parce que yar si boobu lañ amatul dara léegi moo tax loo ci gis xam-xam zéro zéro virgule zéro dara amuñu ko li li ñu am tudd xam-xam fekk nekkul xam-xam sëriñ bi tëdd ci neeboo ndaw nga ne xam nga nu def buntu bi mu ne ko tëll mu ni jàngal comme daanu fa la tëdd tëdd ko tëdd tëdd tëdd ba fajar jot sëriñ bi yeewu ci buntu bi seen waa ji tàng tëdd boobu mu yee ko mu jub mu ni ko yow la kat mu ne ko man maay ki nga dooroon buntu yi bi ci guddi mu ni ko yow yaa ñàkk xëy na dëgg yow ñëw nga ci man dàq naa la toroxal naa la dóor naa la buntu bi foofu xanaa musul la doo dem mu ne ko yow man maa la soxlaal waaye yow soxlaaloo ma moo tax du ma def allahu akbar sayx boobu noonu la ko jëlee mu ne ko yow nag gis ni ko yow def sama yow laa def sama bëkk néeg bi ma gën a jege téere boo bëgg ma jàngal la ko dina la ko jàngal mu ne ko maa ngi jéggalu xam nga lu tax ma defal li ma doon def bii mu ne ko déedéet mu ne ndongay léegi yi duñu ay muñkat te ku muñu doom xam-xam mu ne ko damaa doon test di xool sa muñukaay fan la toll waaye gëm naa ni sama doon wër gis na allahu akbar xoolal loolu tey waxuma la dara waaye sëriñ bi boo juyee moom ci masala sax dañuy gis subhanallah léeg-léeg maanaam di wane man xam naa maa la gën a nangam nangam waaye lépp bu jiwee yow matala ni yaa ci am dëgg sax pour ormal ci ngay jàngee ci moom jëfee lu jiwee la la la mu wax bul jëfee lu jiwee la mu wax. maa ngi fàttali ko benn bi mos na ma ànd ak sama ñaari soxna dañ ci fenn ci ñi ma doon jàngal aw bakar fekk xafisahullah wa jazahullah kulla xayr jàng naa ci moom lu bari ma di ko ñaanal yàlla bi ma ñëwee mu laaj ma fu ngeen jëm ma ne ko ma ne damay. ziyaara ji armel ànd ak sama waa kër mu ne ma ah lu tax nga ànd ak jigéen ñi ma ne ko ah damaa jàpp ni jigéen mën naa dem armel maa ngi moom ci masala bi ñu discuté moom mu ni gisul ni jigéen mën a dem armel maa ngi moom ci masala bi maa ngi moom ku ubbeeku woon la nag danañ ubbeeku wax nangu ma wax li ma gis moom mu wax li mu gis ayof na wallahi duma dañ di ko ñaanal ba tey ndax jëriñu naa ci moom lu bare bare bare bare bare bare ci sunna ba fañ mujjee moom mu dëgër ci ni jigéen du ziyaare ji armel te man li ma gëm mooy mën naa ziyaare ji armel wallahi car maa mujj wax sama soxna dem leen tourné leen ngeen ñibbi man ma dem man te lu tax parce que boobu maa ngi yëg ci sama xol ni wóor na ma ni man jigéen mën naa dem ziyaare parce que am naa ay dalil yu leer waaw nag comme moo ñu jàngal lu bëri ci li ñu xam moom la bëgg maa jigéen moom ci ay masala wala may jubloo xolam wala yu demee noonu gis nga ak yeneen ak yeneen yu lay wan ni maanaam tey même bu fekkee masala mi gis nga lu wuuteeg loola sax amal orma amal teggin ba Malick dañ nekk est ce que jàpp dees na ci xalil baaraami loxo mu ne déedéet xadis rot na fekk benn ndongoo ngi ci biir jotaay bu yëg na xadis rot na bàyyi ba Malick di mu ne ko ah sëriñ bi man de li ma dégg nga wax ko jaaxal na ma de sànq de damaa dégg nga ni baaraami loxo kenn du ko xalil te gis naa ci xadis mu ne ko gis nga ci xadis mu ne waaw mu ne ko bari waa ji xale xadis ba jàll la de Malick ni ko maa ngi doog a dégg xadis mu ne ma loolu tax moom waxoo ko ci jotaay mu ne ko déedéet am orma ci borom xam-xam Malick ba mu dellu tey suba xoolal borom xam ni oyofee te ne démb ci ngoon sama dars bi damaa juumoon waaye diw mii di saab ndongo mooma jubbal ñooñu rëy woon kon yii ay jàngal la yoo xam ne buñ ko toppee yu bari def na tomb yu bari yoo xam ne ci lan moo war suñu diggante borom xam-xam yi amaan na bu fekkente ni darsu bari dañu mën a fekkaa mottali des na mottali ay teggin yoo xam ne moo war dox diggante ñi ñuy xamal te loolu mooy tax ñu am barke barke barke jàng ci alxaan lu bari jàng ay saar wàcc wala xam naa nga ma xadis amul benn temps wala bi dañuy lépp ba ci alal bari la barke lépp ko barke maa ngi koy amee ci ki nga xam ni moo may jox xolam sedd ci man te loolu bu amul rek wa illaa ma ñàkkee ko teggin wa illaa ñaanal ma ko yàlla wa illaa moog sama morom laa boole yemale wallahi booba xam-xam yàlla du ci def barke te barke saa bu amul ci xam-xam rek daanaka mën naa ne comme pënd bu doomu taal bu ñu sànni ci ngelaw ñun ñaan suñu borom subhanahu wa taala effort bi ñu def ak góorgóorlu bi ñu def bàyyi yu bari vraiment ku ne xam ne ci jub di jàngi def na effort parce que mënoon ngaa def leneen effort yooyu ñu def ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla mootal na suñuy xol ba seytaane bañ ñoo foowe ba duñu xaw wi suturé suñu borom a xam-xam wala di leen ñaan yi wala di leen saaga wala li war a dox suñu digganteeg ñoom di dox ci ñoom waaye yàlla na yàlla kàjjat ñu ba ñu yëpp li war suñu diggante ak ñoom bañ mën a jëriñu comme ñoom nañ jëriñoo ba dañu jëriñ wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi